saraax la ñuy def ci sunu làmb fekk fa xew-xewu làmb yi gën fës ci tey ajuma ji yem fanweeri fan ci weeru septembre atum 2022 le journal ba fësal mooy face to face ba war a am tey ci diggante Siteu Papa Sow toftal ca combat yu neex ya war a am ca Iba Mar ca diggante Ibou Afia ak Jeex Jàmm Siteu bu anteeg Boy Diop Lac 2 ak armée bu ndewraan dikk ak ñun ca premier face to face ba doon dox ca diggante Quench ak Lac Rose bu dee Siteu ak Papa Sow ñoom seen ko ñaar ci la ñu fas yéene jàkkaarloo gannaaw seen combat ba tojoon ci arène nationale ci anam bu kenn tey la ñu fas seen retrouvaille le journal ba xamle mooy ñaari mbër kenn du may sa morom a wax Papa Sow la Papa Sow a wax Siteu weñu ca tongdee ñaari mbër yi koy séentu face à bu neex danga ko gis leneen la ñuy ragal kay mooy jàmmaarloo bu nar a dox ci diggante supporters ya bu nu sukkandikoo ci le journal ba wax ne les supporters de deux camps en masse loolee day firndeel ne waa kër Papa ak waa kër Siteu danañ fa fees kenn du leen téye rax ca dolli ne bu ñu xoolee enjeu combat bi daal Sénégal fépp nar tàng leneen la tàng démb mooy jàkkaarloo bu njëkk bu Quench si doon jàkkaarloog Lac Rose ci arène nationale la ñu amalee présentation bi le combat Elimane loo njiital Njàmbur production moo taxawal li ni mel foofee nag la ñu fa nemmeeku mooy Quench dafa jàpp ne moo ëpp doole Lac Rose ndax ca biir wax ngay dégg muy baamtu naan dinaa ko jaay doole danaa ko daan bu dee moom la mu jàpp mooy moo ëpp xel Quench moom la mu fa teg comme tontu mooy Quench boo ma jéemee jaay doole ma jaay la xel nax la daan la journal ba xam le ne combat ba daal wane na boppam ba noppi ku nekk la nga jàpp ne moom nga ëppalee sa morom moom ngay tudd Quench waxi wax Lac xel lay wax waaye amateur buy wër combat bu neex ba yegsi ci bii di nga frenkalaayu leneen la nar a neex kay mooy combat yi war a am ci Iba Mar Diop le 2 octobre yemboog bii ñu dëgmal grand combat ba diggante Ibou Afia Jeex Jàmm Siteu bu anti war faa jàkkaarloog Boy Diop numéro 2 Lac Rose war a jàkkaarloog bu ndewraan journal ba xam le ne Fallou Ndiaye njiital Ndiaye production combat yu neex la ñu àndil ouverture saison bii daal kenn du la Ndiaye production def finale ba ba ci premier combat préliminaire combat yëpp a neex leneen la nar a neex moom Gaston Mbengue dellu si na ci diggante Balla Gaye 2 ak Boy Niang 2 la Gaston xamle mooy dana ñëw dana neex bile combat mu ngi ko jàpp le 1er janvier 2023 leneen la ñuy laam-laamee kay mooy combat ba war a dox ci diggante Eumeu Sène ak Balla Gaye 2 te moom la doon king Gaston Mbengue indi na ci ay tontu yu leer nañ moom la mu ca tontu mooy Balla Gaye bu bëreeg Boy Niang ko combat Forza ak ba diggante Sokh ak Marley journal ba fësal mooy combat MMA ba doon dox ci diggante rëg-rëg ak Batraz Gazayev boobee combat moom rëg-rëg victoire la ci jëlee gannaaw bu mu jógee ca defetam ba ca MMA delluwaat na ca victoire ya ñu ko xamee woon li mel moo waral journal ba ne rëg-rëg renu avec la victoire au fc fa nuy jeexale mooy école de ba da joon nag seen bilan saison 2021 journal ba fësal mooy 26 victoire la am 15 défaite seen leader ba mbay guy gi mbir ma neexul ci même saison bi daan na ci bébé Elton bu Balla Gaye daan ci 5 tonnes bu papakan bu dee ama bu saamel moom ci saison bi daan ci jànkalaar bu Kër Masaar daan ca dumbul bu yëmbal maree daan ca bébé Sinja ak Mor Kankang Senior moom 4 ci saison ne gone googee bàyyi leen ko xel ndax mbërëntaan la jërë ngeen jëf mbokk yi li ma nekkoon li gën a fës ci tu yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah